soxna si Yelli Seye te yaayam tudd Hawa nee na Yelli Seye moomu daa jébbalu woon ci sëriñ bi mu doon xuloog tubaab yi bis ba ñu dindee la sëriñ Touba defoon te muy nuru jàkka sëriñ Touba xaadalahu laahu maxtaara nee na ko ba ñu ma tooñee foofee tooñ gu fés sunu borom subhanahu wa taala wan na leen foofee lu tax ñu tàggook seeni fit am na ci ñu faatu am na ñoo xam ne ba ñu yeggee lañu yàkkamtee gis mooy ndox ak saabu ginnaaw loolu lañu daje am ñu jiital mel ni ku bëgg a jubóog man ba ñu waxee ba noppi ma ne leen ñooñu ngeen gis ba ñu yóbbu seen fitt ndigal rekk lañuy diglu te kenn digalu leen ñu jëm si ci yéen kon na ngeen ànd ak dal te xam ne kenn du leen def dara ndax yéen bakkan képp ngeen di jëfandikoo lu mu leen digal ngeen def ko ñooñu ngeen gis nag ba ñu yóbbu seeni fit am nañu kilifa te duñu bëtt ndigal fekk digaleef lu leen ñu jëm si ci yéen duñu jëm si ci yéen te kenn digalu leen ko lii moo tax ñu dem ànd ak jàmm am na bis sëriñ Tuuba xaadalahu laahu maxtaara lahu ci jamonoy jumaay njaareem ji ci fukki fane tam xarit la yegg sëriñ Tuuba xaada laaxu laahu maxtaara lahu tëjlu ko ba ci kore wax mu wax ne nañu bay penc ma ba ñu ko defee mu door fa julli ñaari rakkaay kori ba génn ca biti ba ñuy liggéey jumaay njaareem ji nag bari woon nañuy wax ne sëriñ Tuuba xaada laaxu laahu maxtaara lahu diglewu ko taalibe yi ñoo ñoo ñiy dëkk ak mbaggam ñenn ñi di topp li sëriñ bi wax ñenn ñi daan na sëriñ bi diglewu ko ba am na ñu ci daawul nangoo def seen alal moo tax kori googa sëriñ bi wax na foofee ba mu génnee daldi ne liggéey bii ma doon liggéeylu laa leen bëgg xamal am nañu ne maa ko santaane am na ñu wax ne santaanewuma ko ma bëgg leen cee xamal lu leer tey jullikaay ba ma doon def ca gabon te nasaraan yi boddi woon ko sànni foofa la ma sama boroom sante woon tabax bii nee na ma séeres liggéey booba mooy tabax bii tey ku ci amoon digal te liggéey ci dugal nañu la ci xurum boo xam ne kenn du la ca fekk ku ci amoon digal te liggéeyoo ci ñàkk nga loo xam ne ba ba ngay tàbbi suuf dootoo ko mën a am danaa leen xamal lu gàtt ci liggéey bi du jàkka du jumaa ëpp na jàkka ëpp na it jumaa su doon amu tur najaatun li ahlil ard moom laa koy tuddee te mooy mucc waayub ñoñ suuf wala misbaaxu li ahli sama làmpuk ñoñ suuf ñoñ asamaan lay tudd ba ba ñuy taxañ asamaan seek suuf si loolu laa koy tuddee bu fekkoon dama koy wutal tur maam Cerno Birahim boroom Daaru Muxti radiyallahu taala anhu bi ñuy tàmbali liggéey bi àddiyam daal teel a ñëw te bari lool sëriñ bi laaj ko ku la ko yëgal mu ne ko ku ñuy wax Aliou Seye sëriñ Tuubaa xaadalahu laahu maxtaarahu ne ko waaw waaw barab bi danga fi nekk walla nga am ku la fi nekk ku la fi nekkal kon mbokk yi fii dañuy yem ak yéen di leen wax ne bu leen fàtte ne di abonné ci suñu site internet bii di 24 actu ñu ngi leen di jaajëfal wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu